joyeux anniversaire joyeux anniversaire sama doom sama xarit sama confidente sama lépp Lary Samb madame Ngom Ndeye Yaxara ma naral loo ma naral loo naral ah baax na ma vidéo la rek joyeux anniversaire passé na waaye mieux vaut tard joyeux anniversaire joyeux anniversaire sama doom sama xarit sama confidente sama lépp Lary Samb madame Ngom tey defe naa discours bi sax jaru ko woon waaye ginnaaw lu mënta ñàkk faaw mu am maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér yàlla bàyyi la ak sa boroom kër suñu boroom di la taxaw ba ngay yokk foo toll di ko yëg je te souhaite beaucoup de maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér loo dund doyul. Ndeye Yaxara loo ma naral loo ma naral loo ma naral ah waa baax na ma vidéo la rek. joyeux anniversaire passé na waaye mieux vaut tard que jamais yow sama doom nga sama xarit nga loo dund doyul loo dund doyul joyeux anniversaire Ndeye Yaxara d'accord ay wax nag laay bañ joyeux anniversaire <laughs>